ne euh, li nga ko waxee da ngeen gaawantu sukkandiku ci affaire yi pour régler ces urgences la mais euh, les points stratégiques yi nga xamante ne tey jii yéen a ngi koy teg euh, merci beaucoup soxna Awa bon li may njëkk a wax rek mooy xam nga gouvernement ni ñu koy tënkee lu ci bëri doon am redondance c'est-à-dire que il est très facile de dire que kii mooy économie kii mooy finance kii mooy budget kii mooy agriculture et mais souvent daan woon am cohérence mhm. moo tax dafa am liggéey bu metti bu nekk en amont cest que def logique ak cohérence ba nga xamante ne superposition parce que superposition yàq énergie mhm. yàq temps yàq xaalis lay indi damay joxe exemple bu ndaw ci gouvernance bu Macky Sall dañ ñëw en 2012 euh, bi ñu koy fal ñu def seen diagnostic PSE ne on a par exemple ci wàllu logement déficit trois 300 000 unités de logement mhm. am pour objectif quinze mille par an. Mhm. c'est en deux mille deux mille deux mille quatorze avec le PSE. en deux mille seize avec la loi de avec la loi d'orientation sur le social ci exposé de motif bi mu ñëw ne Sénégal mënu sax def cinq mille logements par an donc déficit trois cent mille en deux mille quatorze objectif quinze mille mais deux ans plus tard nga constaté ni Sénégal mënul def cinq mille logements par an. en 2016 avec la loi d'orientation 2019 nga gagné élection yi soit trois ans après dara changé wul nga objectif vingt mille soit cent mille en cinq ans ban cohérence moo ci am déficit trois cent mille objectif quinze mille mënoo def cinq mille mais léegi nga ne vingt mille ngay def amul cohérence te li ma lay ni yëpp seen ay rapport la nekk ñoom mais aussi boo jëlee lu mel ni logement booy poursuivre ci loolu SNHLM SICAP BHS Caisse des dépôts ñëpp ñu ngi ci te pourtant kenn ku ci nekk yaa ngi ci mais déployé woo comme il faut mais yaa ngi am jafe-jafe dire que loolu yëpp war nañ ko mën a regrouper mettre ko en cohérence parce que comme ni nga ko waxee dispersion lay indi te yàq temps la yàq xaalis ak et cetera waaye aussi boo ñëwee ci financement wu économie sénégalaise en 2019 suñu programme dañu dañ woon dañuy rationaliser le schéma de financement de de la CD, euh, euh, du Sénégal autour de la CDC parce que tey caisse de dépôt boo liiree loi bi ko créé la loi 2006 04 ak euh, bistop 2017 32 dañuy gis ni habilitation ay mission da ko partagé ak yeneen yi ñu créer ginnaawam muy BND Fonds 6 Fonds JIP li ñuy def yëpp ay mission CDC la donc boo ko mettoon en cohérence am benn DG mun na am déploiement wu ci mission yi nga xamante ne CDC mi ngi koy def mu nekk mission yu am solo parce que tey ñu bëri xamuñu ko mais lu mel ni société bi ñu wax Air Sénégal CDC moo ko moom à 100 pour cent am na surtout yu bëri yooyu di gis CDC moo ko moom à 100 pour cent mais sénégalais yi di ko xam parce que day am rek tour di liggéey parce que ay filiales lañu leen gis foo xam ne dafay def prise de participation mais mission yooyu pour mu jël ko en charge comme il faut bu ñu mettoon ak cohérence bépp loxo bras technique boo xamante ne soxla na ko ñu jox ko mun na am liggéeyam dina gën a yomb. Hmm. la preuve beneen décret nañ ko après caisse de dépôt depuis dix ans peut-être ngi daw derrière un agrément bancaire mënu ko am c'est parce que euh, banque centrale mi ngi koy créer ay astreinte mu am bu nekkoon jox nga ko BND financement direct bi mu bëgg a def dina ko mun def financement bu mu war a def ci PME PMI entreprise familiale yi doxal agriculture élevage su boobaa dina ko mën def sans mu am jafe-jafe donc loolu moo nekk ci liggéey gouvernement donc loolu gars yi ñu ngi ci mais tey pour wax spécifiquement ci urgence waxtu wi mhm. mooy le coût de la vie ñëpp xam nañ ni tey dund Sénégal dafa jafeñ taxe yooyu nga gis surtaxe yëpp ci produit yëpp yi nga xamante ne mi ngi am li ko indi mooy gouvernance boo xamante ne dafa sooxe ci ay fànn yu bëri parce que tey état su amee ay perte de ressources fi mu ko mën a dabaatalee mu gën a gaaw a gaaw a gaaw muy impôts yu gën a ndaw yi nga xamante ne kenn du ko yëg ak taxes yi nga xamante ne kenn du ko yëg te moom la Sénégalais yi di gën a utiliser liggéey sur les volumes mën mhm. a am xaalis su mu gën a gaawee donc Sénégalais bi la ñuy taxé waat mu dem jënd benn xorom fële am ko tegal comme taxe su boobaa gars yi collecté am loo xam ne dañu koy dépensé moo tax ñu war a def dëkk yu mel ni comme suñu dëkk yi mënuñu accepter cest à di que ñuy def ay détournement de fonds wak ñu jël ay xaalis yu mel ni ay force Covid di ko détourné ak et cetera et cetera pourquoi parce que tey lu ñu mën di am bu askan bi jugul taxaw ni lii waratu fee am xamal ni askan boobu moo koy remboursé parce que moom la ñuy taxé après. donc coût de la vie war nañ ci wax mais aussi war nañ mën fexe ba sénégalais yi aussi kenn ku nekk mën a sabab xam nga tey état bu ñu nee des jeunes. nga bëgg rek créer say say say say institu institution ñoom si boobam ñu war a créer emploi day jafe li mm. gën a am solo mooy Tine Mame Birame Wathie ñoom mu Moussa kenn ku ci nekk xam ne mun na créer emploi boppam mais au-delà de moom mun na sax liggéeyloo ay nit donc auto emploi ak fànn yooyu mooy tax ñëpp mën a déployer tey boo nee logement état mun na xëy ne ay am naa programme cinq mille mais bu nekkee kenn ku nekk ci ñun am nga accès au foncier mun tabaxal sa bopp déjà da nga gis ay milliers voire des millions de choses yoo xamante ne dañ ko mën en temps donc approche bi dafa bokkul ak ñi nga xamante ne ñoo fi nekkoon ma je crois que les premières mesures pour apaiser les sénégalais ci jafe-jafe yi nekk. Mhm. d'ordre social incha allah man xaar naa ko ci gouvernement bi. mais aussi gëm naa ni bu ñu mettre en cohérence bu baax a baax a baax linéarité bi war a am ci exécution wu plénitude mission yu xamante ne moom la man ma def li ma war a def tin def li mu war a def bu yàggee ku nekk incha allah di nga gaaw a gis ñi nga xamante ne moom mooy articulation mais Pape Moussa euh, tey euh, le profil Ousmane Sonko dañ naan euh, rigueur d'ores et déjà est-ce que du loolu la Sénégal soxla instant bi pour mener à bien yi nga xamante ne tey wax nañ ko mën a teg tey ci soxna Awa du ma wutee jàkkaarloo ak le président Diomaye mu waat duma ko wutee dans la mesure où euh, le PASTEF depuis dix ans dafa am euh, lu ñu apporter lu lu lu lu euh, ci espace euh, politique bi. Mhm. proposition yi bari woon dénonciation yi aussi bari woon mais aussi profit ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko composé nekkoon ay profil yoo xamante ne. yu yu yu yu innovant lañ Fadilou Keita xamoo ko au auparavant euh, trop ci euh, espace bi Ousmane Sonko même s'il était secrétaire général du syndicat des impôts taxawaay bi mu am c'est-à-dire c'était le seul parti boo xamante ne apporté na un plus-value la plupart du temps recyclage lañ doon gis alors bi tey dafa am lu mu souligner au début te euh, ñaari élément yooyu noonu mu dugal ma am ci ñaari jàngat benn bi Diomaye wax na ko ci discours am le président Diomaye il a dit ci discours am que moom mu ng mesurer le poids de la responsabilité bi nga xamante ne askan wi jox nañ ko ko loolu noonu bu jëlee caabi bi ak ñaari loxoom mesurer na euh, l'étendue de cette responsabilité là xam ne caabi bi oyoful alors li euh, mu wax aussi ci euh, ci ci voilà soxna Aminata Mbengue boobu noonu firndeel na tamit ci yërmande jëmale ci ñi nga xamante ne mooy askan wi parce que tamit ñooñit li ñuy xaar bari na torop torop donc kon euh, lii nii mu def tey yàgg na fi euh, foog naa ne douzième prestation de servi euh, de serment moom moo nekk nii te moom mooy cinquième personne bi ko def mhm. kon du fi tey ne Sédar Senghor def na ko quatre fois président Diouf def na ko trois fois président Wade def ko deux fois président Macky def ko deux fois donc kon moom bosam lan la war a mën a apporter nag loo xamante ne dina wuuteeg yi yi nga xamante ne moom moo fi jaar euh, tey dina xaw a euh, violer un peu euh, ni ma xamee mooy rendre un hommage au président Macky Sall parce que même bu dee les cinq dernières minutes de son mandat la ximiriku <laughs> au moins au moins am na yoo xamante ne man jàpp naa ne reconnaitre na ko ci erreur ba tax nii mu doxalee ces ces derniers jours là mu doxalee ko teyit du ñu ne tamit defu fi dara malgré un bilan immatériel catastrophique y des projets yoo xamante ne man jàpp naa ne ce sont des projets pertinents que ce nouveau régime la war a euh, continuer euh, voire même euh, donc kon am na loo xamante ne andi na ko mais au-delà ci sphère politique bi euh, l'élection du président Diomaye euh, rupture lay def ci yeneen même même budul aspect wu politique effectivement politique bi dina am rupture opposition du na woon lay continuer di doone mais aussi même ci espace yi ñu nekk ni euh, soxna Awa léegi nii à partir d'aujourd'hui ce n'est pas n'importe comment on va chroniquer ce n'est pas n'importe <laughs> comment on va exercer le métier du journalisme mais parce que ah bon oui le xam nga va changer xam nga régime bii nii seen toor mooy dañoo wàcce woon niveau bi ci euh, anam boo xamante ne Euh, trois dernières années yëpp lan la ñuy waxtaanee est-ce que dëgg-dëgg euh, le niveau du débat public mu ngi nekkoon à la hauteur de l'intelligence sénégalaise amul woon. mais mooy li ma laaj est-ce que tey jii euh, Ousmane Sonko comme PM. du rigueur bi nga xamante ne moom la ñu manqué woon. moom la ñuy retrouver looloo tax ma ne. le duo président Diomaye premier ministre Ousmane Sonko mais du n'importe comment ngay opposé wo ci ñaar ñooñu. Ah, au vu de leur parcours au vu seen rigueur au vu de li nga xamante ne wan nañ ko askan bi depuis ñu fi ne ba léegi foog naa ne euh, opposition taf yëngal moom jeex na. d'accord ñële nag euh, dañ doon euh, doxalee noo xamante ne mais débat bu nekk dégg nga ko fi. Mm-hmm. les trois dernières années. niveau bu wàcc wàcc boo xamante ne parce que régime bi moom moo yóbbu woon foofu donc niveau boobu noonu dootul am léegi nag yaakaar bi mu ngi jëm ci déjà Ousmane Sonko premier ministre pour man dama koy faral di wax. le projet euh, du nit mais it nit projet la euh, le projet ce ne sont pas les personnes mais aussi ce sont les personnes qui font le projet donc Ousmane Sonko euh, profilam ci mbir mi vraiment c'est lui qui incarne carrément li nga xamante ne moom moo tax Sénégalais yi recevoir euh, Diomaye à un certain moment donné même dans la communication politique pour l'acceptation euh, du président Diomaye soit facile il fallait dire Diomaye mooy Sonko alors donc kon loolu noonu tey jii nii euh, wane na ne dualité bi complémentarité bi euh, effectivement loo xamante ne la Sénégal euh, jàpp naa ne mën nañ cee jëlee. lu bare bare hmm? pas dualité mais duo duo et complémentarité. ba tey ah, complémentarité c'est-à-dire Ousmane Sonko moo ñu koy wax de. Hmm. moom moo ne le président Diomaye li muy xalaat moo ëpp li muy wax. te bu xalaatee it ba pare bu jëfee ñëpp ne gongo ba moo ñu ko wax alors moom mi ñu wax loolu noonu woo moo ñu delluwaat ne joxoñ naa leen ko waaye du ma ko bàyyi moom kese du ma ko bàyyi muy wéet dinañ ko accompagner ci processus bi attention awa euh, le projet Pastef ah man de dama ko liir bu baax a baax a baax a baax lépp loo xamante ne euh, bokkul ak li woon dinañ ko euh, teel a mën a détecter mais nag la personne du président Ousmane Sonko daf ci amoon solo. torop torop torop. Mhm. te foog naa ne tey jii nii place bi mu occupé je pense que ni amul woon kenn koo xamante ne gënoon na ko ci yaayoo. d'accord maam Khady ñu ñëw ci question avant may ñëw ci ayo waaw euh, comme niñ ko waxee.